jërë ngeen jëf ci teewlu bi amee site internet net bi tv li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy doore yi nga xamante kii di Alioune Tine dina koy yëkkati rek ci ab poste ginnaaw ay laaj yi nga xamante ne rek doon nañ ko laajte ñeel jëmmuy kii di Bassirou Diomaye Faye moom nag la mu daal di xamle moo di kii di Bassirou Diomaye Faye nekk na fonctionnaire bu exemplaire nekk na koo xam rek cadre politique la ku oyof ku yiw koo xamante ne rek ku bëgg di Pastef la mu daal di ci ki nga xamante ne moom mooy fondateur Afrikajom Center daal di wax ci Bassirou Diomaye Faye moom nag la mu daal di xamle victime la nag ci Ousmane Sonko ndax jege bi nga xamante rek jege na ko kii di Ousmane Sonko waaye question bi nga xamante rek moom lay posé ba naga ni rek moo di lu tax Bassirou Diomaye Faye nag ñu daal di koy bàyyi ca prison ba tey rek la mu daal di xamle nekk na fonctionnaire boo xamante rek ab intellectuel la ku yaru la ndeysaan waaye ku am diina la ku gëm yàlla la ku capable la waaye nag koo xamante ne néeg naa rey sax weñ bay laal doomu aadama di kaddu na xamante ne rek daal dina koy dund ak violence yi nga xamante ne ak ñi nga xamante rek ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci biir réew mi Pastef nekk na génération boo xamante ne rek génération bu suude la bu dëggu la génération boo xamante ne nag dafa gaaw a màgg waaye kii di Bassirou Diomaye Faye lam wax ca moom ak lam xam ca moom yëpp mooy ngor fulla ak jom ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne kii di Alioune Tine daal dina koy yëkkati moo di ne Bassirou Diomaye Faye victime la ndax nag jege bi nga xamante ne rek jege na ko Ousmane Sonko xëy na moo ko yóbboo tey li yëpp muy dund waaye nag foofu rek ñu daal di koy libéré ba noppi rek jox ko dellowaat ko postam ndax nag jamono ji opinion bi nag lu ñuy soxla du lenn rek waaye nag contesté que attaqué ak tourné la page nag moom moo leen gën a yitteel ba tey rek la mu daal di xam la lu des nag ci wàllum politique bëri na waaye nag faw rek ñuy bañ di jaxase li nga xamante ne nag moom mooy confusion bi nga xamante ne rek bu ñu ko jëlee mën nañu yóbbu foo xamante ne bëgguñu fay yegg ba tey rek moom Alioune Tine la mu daal di xamle nañu daal di rek ci li nga xamante ne nag moom mooy solution bu ñeel nag réewum Sénégal fexe rek ba juge ak ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy gardien prison yi ak force de défense et de sécurité yi nag ñu daal di def seen liggéey bi ci anam boo xam xamante ne rek anam bu mucc ayib la fexe rek ba buñ leen xeeblu ci dara di kàddu kii di Alioune Tine jërë jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen info